ba ñu génnee ci session spéciale ba seenu bureau politique doon amal parti And Jëf PADS daal dina fësal turu ki nga xam ni moo nar a nekk seenu candidat ngir jongante présidentielle bu atum 2024 mu di Mamadou Diop Decroix di secrétaire général bu parti boobee. wax na réew mi daal toll na foo xam ne ñoom am nañ ci njàqare seet nañu ba gis ne ku mel ni du Diop war na ce mën a taxaw. day jaadu effectivement nu mën a. Euh, présenté wu ci élection 2024. ñu am ci langue politique gi lu mat daanaka juróom fukki at ak juróom benn parti bile daal dina am yàqin am na li nga xam ni moo mën a saafara jafe-jafe yi askanu Sénégal. man naa wax ne fi nu jëm ñime nan ko am nanu lu nu mën a wax ak sénégalais yi dinañ leen ko wax. mënuñoo am at yi nu am ci politique ci Sénégal Sénégal dem ba toll ci situation bii mu toll. ñu bari naan du Mamadou Diop Mamadou Diop daal di dem làqatu ji loolu ci français désertion lañ ko tudd. Mamadou jóob de ak ña mu àndal fas ne ci bis yu ñu dëgmal wër bépp goxu Sénégal ngir présenter leen seenu programme politique.